loolu mooy raison ok voilà donc lii voilà yii mooy cerise ñu ngi leen koy woon nii Maya la rose mi ngi leen koy woon lii mooy cerise fu ñu nekk Sénégal nga xam nii may yii la ñu woowee raisin ay raisin lañu hmm, waaw ok donc euh, bokkul ak cerise euh, euh, kii yooyu waaw yéen raisin sec yi ngeen du ngeen di wax ñun waxuñu foofu ok mais ni leen comprendre gars yi ni comprendre tamit. gars yi génnuñu tamit ne leen comprendre du seen du seen kii bu dëkk bi baaxoon tey waroon nañ am passeport yoo xam fu leen neex dem mais euh, tu vois euh, pour nga am rendez-vous sax cinq cinq ans la Sénégal pour nga am benn rendez-vous Canada wala États-Unis cinq ans cinq ans ngay pour rendre benn rendez-vous rendez-vous rendez-vous diggante bu ngay wut rendez-vous ba américain bi moom day ñëw nu ko neexee Sénégal mun na fee ñëw cinquante fois yow yaa ngi xaar rendez-vous canadien bi ñëw Sénégal cinquante fois yow yaa ngi xaar benn rendez-vous boo xam ni ambassade ba nga koy xaar dajale cinquante mille papiers pour benn visa jaral na la lu ne donc loolu loolu yëpp lu du ñun loolu nag moom suñu autorité la ñoo ñàkk fayda ñàkk fayda bu day ni amuñu benn cër kenn respecté wu leen tekkiwuñu dara te yore ressources naturelles yu innama kenn mu incontrôlable donc loolu ci ñoom la ñoom ñu am problème donc juste pour vous xamal leen daal boo leen gisee ma leen wax ni sénégalais laay waxal bëgg leen seen bopp yéene leen seen bopp jàmm yéene leen seen bopp lu baax fii ñu fiy gën a xeex Sénégal ñu fiy gën a xeex Sénégal ñu fiy gën a xeex ñoo gën a baax la situation déglu leen de dama ne Sénégal ñi gën a xeex ñoo gën a baax la situation ñu gën a xeex ñoo gën a baax la situation ñi nekk ci diaspora ak ñu nekk Sénégal la ci yem ñi gën a xeex ñoo gën a baax la situation il peut bien s'en sortir mais du leen tey dañuy bàyyi loolu privilège yooyu yëpp ñëw di xeex donc maa ngi woo Sénégalais yëpp góor jigéen mag ak ndaw xeet yëpp région yëpp ñu taxaw déterminer wu mobiliser wu pour le 17 incha allah te du benn fan du ñaari fan du ñett fan ñi ngi xaar nag cour suprême yéen laay waxal dofu leen jën na jàpp gis naa président Sénat ñëw tey naan waaye il faut ma toog pour mun a xool Sénat bi la ñu waxoon est-ce que waaw la ñun xam nañ ni Ablaye Ndiaye kenn xaaru ko ci dara Ablaye Ndiaye moom bu Sénat kenn may la ñu amuñu seen jot concentration gars yi focus bi ngeen doon dégg nag focus bu yàgg boobu focus 2024 ndeysaan le 17 la focus ba nee leen loo leen gis lu tëgg tas focus 2024 focus focus 2024 2023 la de yàlla wàcce na ko de focus 2023 le 17 focus 17 boobu bu jeexee c'est fini ku la waxati focus bu jeexee te dara amul ku la waxati focus ñuusal ku la waxati focus faxasul te ñuus nga xam ni focus amatul. Sénégal le 17 bu ñu ko ratee focus amatul ku la waxati focus nokk ko koo fekk mu bind focus effacé le set bu weesoo te Sénégal yënguwul yëngu ba ñu delloo Ousmane Sonko ci liste yi c'est fini amatul focus xam fu ñuy focus jëm fu ñuy focus jëm décembre bii la ñuy tëj lépp di sembre la affaire yi di jeex rek fu ñuy focus jëm fan lañ jëm fan fu ñu jëm yàqu nañ ñun ñëpp torox nañ ñun ñëpp c'est fini donc focus ba nag. le dix 17 la le 17 novembre 2023 une date historique pour la libération du peuple sénégalais voilà battez-vous pour avoir une meilleure système euh, euh, meilleur système social démocratique de justice de liberté donc voilà et la balle est dans votre camp man maa ngi ñëw euh, xam naa ni gars yi tam ñu ne boobu foofu guddi na fii guddiwul vingt heures mooy moo fii doogo a jot di leen di leen wax ne ngeen ngeen bëgg seen bopp ngeen libéré bëgg leen seen bopp ngeen libéré wu hmm? donc à patrie ou la mort nous vaincrons le 17 incha allah sur toute l'étendue du territoire national Macky Sall di ñu may mbaa di nga ñu rey mbaa ñu rey la di nga ñu rey mbaa rey la yéen justice bi yéen ñi ñu corrompe wallaahi boo leen bëggee taal réew mi bisimilah en tout cas way woowu du mës a fay ñu ngi leen di xaar peuple bi taxaw na déterminé wu pour se libérer à vi incha allah waaw à Paris il est deux heures au Sénégal il une heure douze waaw ok ok ok d'accord les gars. En Corée du Sud, il y avait, il y avait 9 heures de, de 9, 10 heures de décalage horaire. Hein? ñoom ñoom ñi ngi ci waa waa Corée du Sud fu nekk nii ñi ngi ci ay midi une heure ci mardi voilà euh, Chine ak ak ak Corée une heure temps lañ rawante woon une heure temps Chine moo moo rawe Corée une heure temps y après Japon moo rawe Corée du Sud une heure temps voilà donc les gars la patrie ou la Chine moo nekk moins wala Chine moo nekk moins une heure temps moins que Corée du Sud Japon moo nekkoon une heure temps plus que Corée du Sud ñu rey woon Sénégal jamono jooju noonu ñu rey woon Sénégal dix heures de temps ba mu fay mujj euh, Japon rawee Sénégal onze heures de temps Chine rey woon Sénégal huit heures de temps. yàlla rek a mën yàlla kenn moom waaw nag ne dafi bëgg doon suñu yàlla par force hmm, Macky ne ba day bëgg a doon suñu yàlla dinañ ci xam moom mooy yàlla <laughs> kon nag les gars stay real on maintient on maintient wax ci jeex na wax ci jeex na jot na waxtu bi jot na waxtu bi jot na waa patrie ou la mort libéré wu leen libéré wu leen barki alxuraan balaa nga xam ne Sénégal ci bu jaam dëgg lañ ne nga génn fa nga génn fa lu la jafe woon yëpp yàlla da la koy man xawma la Sénégal ngay toog di am problème mu cent di am problème mu feebar faju fii da ngay feebar faju di am problème mu lekk lu baax nga xam ni loo lekk rek seen waa waa kër la ko jox ngay mel ni animal bu seen waa waa kër toggee dëxin boo ko buggul fande bu seen waa kër toggee suppu kànja boo ko buggul fande bu seen waa kër toggee sulux mbalax boo ko buggul fande dërëx mbaa dee la dërëx mbaa dee fii nag loolu amu fi fii bu sama waa kër bëggee sulux mbalax man leen bugguma sulux mbalax te bu boobaa duma dee ci fande damay dem lekki lu ma neex mais ñun Sénégal on naa galéré de ça nekk ci kër ñu buñ toggee sulux mbalax boo ko sax di nga war a mbalax mbaa nga wala nga tëdd naan paanu ndox sa biir naan brrr brrr te mel mel métro bu paan brrr wala bu euh, moteur ba toj ay Sénégal moo dañuy toroxal naanan torox tott la réew moomu réew dafa torox bay xeeñ xeeñ torox ak bon ak bon Sénégal la bon ndayam doome xaram lañ jàcc alal yépp askan wi ñàkk nekk ci tali bi di reyante pour cinq mille oh boo mayee chauffeur taxi cinq mille laa la wax day man may mës naa may chauffeur taxi cinq mille barki alxuraan ci digg tali bi la taxaw oto yi di mu tëdd u wàcc verre yi sama sëriñ sama sëriñ jërëjëf waay sama sëriñ ma ne saa yi demal demal gaa tee tee mu taxaw di ma ñaanal man dama tiit ma ne cinq mille laa ko jox cinq mille mel ni million laa ko waa ji ubbi wàcc vitre yi di waay waaye sama sëriñ gars non waaye sama sëriñ waaw maa ngi lay jëf sama sëriñ jërëjëf waaye yàlla yàlla fay waaye yàlla ma ne laa illa ay waay kii may ma ko sax dix dix may ma ko sax dix dollars may ma ko sax dix euros ndeysaan dix euros sax may ma ko laa illa illallah dix may ma waa ji di ma ñaanal dig ñaan oto yi di corne mu taxaw ci digg tali bi <laughs> ma ne sa ay droite wala nga droite ñaanal ma droite droite ni ñaanal ma kon droite ni ñaan waay doo dem waay ji bu muy droite toujours mu jaar sama tànk yi mi ngi droite mi ngi bëgg a jaar sama kaw maa ngi taxaw naan ko non jërëjëf jërëjëf mi ngi droite bëgg a mais saa waay gars yi sonn ngeen de barki Seydina mu xam ku leen ko wax sonn ngeen ku la ko waxul sonn ngeen lekku leen naanu leen dund leen dund bu baax doo leen faju xamu leen docteur bu baax munu leen fa dem il faut ngeen xam loolu nag il faut ngeen xam ngeen yërëm seen bopp nag yërëm seen bopp li ñu ne dañu leen ko wax pas pour saboter pour ngeen yërëm seen bopp ngeen yë balaa maa dee nag am ñu fa toog nag non ñun ñu ngi lekk lekku leen tous seen kër añ ngeen di dóor ceebu jën lundi ceebu jën mardi maafe ceeb la ba léegi mercredi suppu kànja ceeb la ba léegi ginnaaw suba domadaa ceeb la ba léegi yaa ngi na ngi dee ci biir bi dund leen de da ngeen di mëkk seen ceeb ba seen biir ne kenn ngeen ne lekk lekk ku leen dara ku leen génn yóbbu leen hôpital nutrition yi bëriwut ceeb la bëri bëri la kese soos yi ñeex yi ñam yëpp wàcc nañ fa lekk ku leen tus waaw maa dee na ngeen na di siisu lekkuloo lekkoo lu baax ndox ma nga ca teg sax amul ah, boo buñ def buñ ko yóbbuwoon ci laboratoire ba ndox ma lu fa nekk ci virus kenn lu mot kenn xamul lu mot ay barki alxuraan ku yóbbu ndox mi ci virus ku yóbbu ndox mi ci laboratoire génn la trente mille ton de virus bu nga naan noo dundee noo dundee sa lekk gi baaxul ndox ba nga naan baaxul aire ba ngay nokki baaxul dara baaxu fa yërëmal sa bopp yërëmal sa bopp yërëmal sa bopp dimbalal sa bopp jéemal nga sauvé wu libéral sa bopp une bonne fois réclamer nag say droit say devoir réclamer lépp bu boobaa dañ lekk koy jox parce que da nga xeex pour am ko voilà donc euh, yaakaar naa ne yéen a ñu gën a xam li ngeen di daj waaw yéen a ñu gën a xam lu ngeen lu ngeen di daj waaw ceeb boobu moom sénégalais day lekk lundi ba dimanche ceeb lépp lépp lu mu la base bi ceeb la moo tax ñoom mag yëpp a jabet ñëpp a jabet lépp suukar si la ceeb ceeb ceeb lundi ba dimanche plat national lu Sénégal bi ceeb la bu ceebul jën maafe bu maafewul domadaa bu domadaa supp kànja bu su supp kànja su lux mbal munul toog journée te war a xur ceeb te ceeb ba suukar saafara ne jabet kese ak bëri biir amul leneen dara te ceeb ba moomuñu ko nag balaa maa dee ñu ne Pakistan Siam riz parfumé riz brisé ceebu jàmbur yi ceebu jàmbur yi rek lañ jàpp di par balaa maa dee parfumé Siam Pakistan dëkk ay dëkk ngay cité kañ nga naan Dakar. kañ nga naan dakaar kañ nga naan Sénégal ceebu waalo bi kenn lekk ko fa fees dell ak dell dell dell ak ay xeer ceebu waalo bi dell jigéen ñi sax kooku indil ndeysaan may fàllu sa baab mosa indi benn saaku ceeb waalo ak fa yàgg <laughs> jigéen yow ceeb bi dafa bugg dafa bugg ndox ceeb bi da ceeb boo xam da nga koy fanaanee ci ndox man lañ loolu ñen moom mooy ceebu waalo da koy fanaanee ci ndox paanu ndox nga def ceeb bi sotti ko fa mu muy naan ceeb bi di naan ndox mi <laughs> ceeb bi di naan ndox mi di naan ndox mi 24 heures pour nga mun ko pour nga mun ko togg ñu ne ma lii mooy ceebu waalo lii lay fe dal kii ay xeex rek Sénégal rek ngay fekk ci ceebu waalo boobu Sénégal rek ngay fekk ay maire <laughs> day feeñ sax ci théâtre yi ñu teg seen i ñu teg seen i lay naan dañuy tànn quoi ma ne mais maire yi am nañ jot. mais monde bi dem na kenn tànnatul ceeb ceeb kenn du ko tànn ceeb tànn machine ba tànn na ceeb ceeb kenn du ko tànn man xaw ma fu ñu tànnee ceeb Europe ñu tànn ceeb France ñu tànn ceeb Amérique ñu tànn ceeb Australie duñ tànn ceeb Japon duñ tànn bàyyi leen ceeb bi ngeen di tànn bàyyi leen ceeb bi ngeen di tànn boo leen amoon seen dëgg dëgg dëgg dëgg devoir bu ñu leen joxoon seen ak seen yelef doo leen tànn ceeb da ngeen ko tàmm tàmm mel ni kii même théâtre yi sax dañuy génn benn maire buy tànn ceeb mais ça va c' est perte de temps énorme bu la fi nasaraan bi fekkoon ne waa kii bi def lii la ñu ne tànn ceeb quoi c' est signe de pauvreté la tànnub ceeb signe bu énorme la énorme au moment président da leen naxoon na ne leen autosuffisance en riz autosuffisance alimentaire deuxième tour 2019 autosuffisance alimentaire amuñu sax ceeb amul ceeb bu ne Siam wa Siam dëkk bi moo tudd Siam Pakistan Pakistan riz brisé riz parfumé riz am sama gars yi le mal est trop profond parce que Seydina Mohamed Sénégal dañu am problème de dañu am problème yu énormissime yu gravissime gravissime yu doy waar doy waar dara ba même diwlin bi baaxul même diwlin bi ay résine résine yi diwlin yi la ngay <sighs> non non dinañ ko xeex nag buñ ko bàyyi noonu def Macky dinañ may jàmb de diwlin yi nu mu bëree Sénégal diwlin diwlin diw fii diwlin yépp am diwlin dangay ñëw ci benn supermarché am na plus de cinquante façon diwlin ay tournesol ak ay diwlinu gerte ay huile soja ay diwlinu ay fleur ay diw ay diwlin yoo xam ni da nga qualité bi pour ñu pour nga génne ko rek booy ñu fay jaar ñoo xam ne ay avocat la ñoo xam ni audit entreprise ay audit audit audit qualité huile huile d'olive ay xaar man dem sama yoon sax même huile bu ci nekk dafa am lu même huile d'olive gars yi duñ ko toggee ceeb huile d'olive huile d'olive gars yi dañ ne non ñoom dañ ci moom la ñuy moom la ñuy defee ay ay affaire salade ay affaire yooyu am beneen huile bi moom la ñuy toggee lii huile bi la toggee lii lépp am huile lépp ay huile fleur ak huile de mangue lépp am huile yëpp façon huile yu ne bu ci nekk am na ay qualité ak lépp ñu ngi ko ci bind gars ngir yàlla sauvons-nous la vie sauvons-nous la vie huile de canola la wa rasuli yërëm leen seen bopp Sénégal laay wax yërëm leen seen bopp dimbal leen seen bopp lillahi wa rasuli ngir yàlla xanaa dañ leen topp di leen ñaan yërëm leen seen bopp fii huile yëpp fi am tournesol ak canola ak eh, huile <laughs> palme boo waxatuñu sax am na fi huile de palme ak lépp yàpp yàpp fi huile yëpp